asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi marché Petersen bu ngeen gisee fi ñu taxaw ñu ngi ci biir jaaykat yi fii moom jëndal ma jaay la moo fi am li ñu feen di nag lenn la rëg-rëg ngeen xam ko bu caaroy rëg-rëg bu Sénégal suba fa nga xam ne moom mooy ca Singapour dafa war a jongante benn combat MMA ak benn Cameroun bu ñuy wax ale Ngowani tey nag ñuy laaj sénégalais parce que ñu bëri damay dégg xule ñu naan rëg-rëg li mu dugg est ce que du dansé te defe Petersen boo ko waxe di nga wax ndax ñi fi ne dañuy dem lamb xam nañu rëg-rëg et puis gis nañ adversaire moo tax ñu bëgg a laaj gars yi rek ay quelques personnes ñoom nu ñu gisee mbir moom nga xam ne ci la rëg-rëg loo xam ne xam naa ne lu nar a méttee lay doon salaamaaleykum soxna si moom day jënd de mu ngay daw de ama fi jaayee fi am kilifa gi maa ngi lay ziar. waaw dala ziar am nga jaam. jaam bu wér kay maam. moom xam nga ko. waaw xam naa ko baax. ki muy dajal muy Alain Ngowani suba ca Singapour. di adversaire am. yéen waa ji yéen a ngi gis wala. waa ji ñu ngi koy seeraan démb rek moo si mujj nag. koy seeraan bu baax. am na ñoo xam ne dañ ne Reug Reug li mu dugg risque la ak yu mel ne ki noonu yow en tant que sénégalais loo gis. non loolu du risque gaañ. Reug moo waa ji bokkul sax bokkul. kon looy rek victoire la koy ñaanal suba incha waa ji rek a xam waaw victoire rek ndam rek waa ñu ngi ci ginnaawam. na ndam rek la bëgg lay lay ñaanal rëg maa ngi ñëw fii Petersen la maa ngi lay bëgg kilifa gi. waaw ñu ngi delloo bëggee ñu ngi siyaar sa bi man Pa Omar laa tudd waaw ñu ngi ñuy ñëpp ah, di siyaar ñëpp di bëggee ñëpp waaw. waaw ko rëg suba ak MMA bi ca Singapour. Eh, loolu combat la combat Reug Reug moom dañ koy ñaan mu am ndam mais na xam ne tamit am na combat quoi bi moom risque la nekk risque parce que Reug Reug maanaam bëre bëre Sénégal la xam te bëre Sénégal mu lay bëre te euh, li bëre bëre bëre ne le MMA bi mën nañ la cee gaañ mën nga cee blessé loolu mooy risque bi ñu suñu mbër la ñun ñëpp ñu koy ñaanal parce que Sénégal la représenté mais léegi dafa doon loo xam ne risque la quoi am na parce que yow yow sa xel dal na ah waaw xel dal la parce que ah na xam ne waa ji mu doyal tamit bokkul ak yeneen waa waaw mais victoire lañ ko ñaanal quoi mais combat yi moom yàlla moom MMA bi risque la quoi parce que mën nga cee jëlee blessé mën nga cee waaw. jaajëf sama sëriñ maa ngi lay ziar. Eh, Baye Fall bëgg naa la ci loolu. na lu baax non ragalu ma ko sax. Eh, da koy faral di seetaan. waaw non dinaa ko seetaan su suma moom. waaw suba comme kon xam nga ki rëg-rëg dajeel suba. waaw ki rëg-rëg di bër dajal seetaan na ay vidéo mais nag adversaire la quoi mais nag incha allah rëg-rëg da koy defal bagage waaw loolu daal laa gis incha allah rabbi waaw loolu laa gis moom te loolu lañ koy ñaanal itam te noonu lay demee sax combat bu kaa lay soxna si yow xam nga rëg-rëg rëg-rëg xam naa ko bu baax foo dëkk yow Pikine MMA bi muy defi suba loo ko ciy ñaanal xanaa di ko ñaanal moom rek Mm. tam doon lu ko jik waaw loolu daal laa koy ñaanal. am na solo sama sëriñ maa ngi lay bëgg. maa ngi lay ziyaare. Reug loo koy loo gis suba ci li muy jongante ji suba. Reug mu yokk joom rek xam nga mu yokk joom respecté waaju mu an respecté waaju bu mu war a jongante xam nga waaw loolu laa koy ñaan ko wax waaw. ba tey ñu ngi Petersen rek di dox maa ngi bëggee. maa ngi lay dellu bëggee la mi si loo boo nee Lamine ne Babacar lépp benn la. damay juum maa Lamine benn lañu maag Lamine benn lañu. maa yaa ngi si jàmm. <laughs> sant naa. na combat bi ñu ngi mu am si ndam xam ne tey Sénégal la demal demalul boppam quoi te li ñu koy encouragé mooy mu def ndànk rek xam du yeex heure bu ñëwee rek baax na te lépp réew mépp a ngi si ginnaaw tey moom du suñ biir quoi dafa génn naa jàpp ne bi rek la teewal ñun ñëpp nag ñu ngi si ginnaawam quoi waaw yàlla na ko si yàlla may ndam rek ñu ngi lay kontaane nag ziar naa la. rëg-rëg suba mu nga Singapour fas yéene jàkkaarloog benn Camerounais ci MMA. waaw yu bëri am ci am ñu ci tiit am ñoo xam ne nañ garaawul yow loo gis. gars yi allé nga gars yi entraînement yi moo leen tiiral quoi yu waa ji def. te loolu moom dafa wuteeg combat quoi. kooku rëg-rëg ko mën. Hmm. affaire bi daa xaw a amaale. bëre. malgré nag du bëre. am na arts martiaux yëpp mi ngi mais bu dee côté boobu la moom. tiiluñu si dara wax dëgg yàlla champion bi ñu yor moom wóolu nañ ko bilaay kon yéen seen xel dal na kenn waxatu ko waa ji ñemewul lu métti combat mi bëri da koy ñàkk lu tax loolu waaw ah? ah, euh, boobu waa bu méttee day abandonné boo boo ma weddee yow boo duggee si ne bi seetaan lay combat am yu ma ñàkk yëpp boo ko tegalee lu métti day abandonné te ñun ki yor moom dafa yàgg dul lu métti waaw combat moom tiitalu ko tiitalu ko ba tey loolu leer na kii moom daa mel ni yàgg naa suivre MMA bi ba tey yaa ngi Petersen ci jaaykat yi maa lay bëgg kilifa gi. siyaare baax. am nga jàmm. waaw tamit defe naa yaa ngi suivre MMA bi de di suivre combat rëg-rëg bi waaw maa ngi rëg-rëg lu ngeen am tiit am na ñoom ne tiituñu. non man moom tiitu ma moom man tiitu ma gëm naa bu ko jaabee moom du doy li muy liggéey si ah. moo gën a dëgër waaw ki liggéey suuf moom moo ëpp doole chaque jour waaw fu mu ko jaabee du doy moom waaw weñ moom du dara weñ moom du dara waa suuf moom ku ci liggéey moom boo dajee ku ku liggéey weñ rek xam na kii moom du dara duñ benn waaw am na solo jaajëf maa am ngeen jàmm ñu ngi am jàmm xanaa da añ ba pare tëdd nii jàpp njàmm waaye gis nga dëkk bee tar rek dëkk bee métti quoi mooy loolu yaa a xam rëg-rëg defe naa xam nga ko rëg-rëg bu baax a baax kay champion di mag boobu suba mu ngay jongante ji ca Singapour MMA ak Alain Ngouani rëg-rëg Alain Ngalan waaw rëg-rëg ni nga ñaanal waaw mu champion la quoi champion la ñun dañ koy suivre dañ koy suivre fii si làmb ji Sénégal fii ak bitim réew yëpp ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax waaw doomu ak doomu réew yi nekk Sénégal euh, bitim réew yëpp ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax. yow xam nga rëg-rëg. waa rëg-rëg waa xam naa ko bu baax. ki muy dajal yaa ngi koy seetaan ngalani. waa ngalani maa ngi koy gis nii rek mais xam naa ne kooku du dara. Hmm. waaw suñ ko jàppee moo xam ne du dërëm. mais am na ñoo xam ne dañoo tiit ci combat mu am nii dafa dangereux de. ñooñu ñuy tiit si si combat bi ñooñu dañoo xamul rëg-rëg yow da ngaa xam mais man mi xam rëg rek dëkk ak moom. waaw man du ma téye si combat bi. Hmm. waaw. kon daal sa xel dal na. sama xel dal na su ma dinaa ko duma daan ko Sénégal yëpp xam ni tubaab yi ñu doon wax naan tubaab yi la tubaab yi la africain ak tubaab yi laay boole. ku si génn ma faj. kenn du tubaab da kee africain la comme yow doomu Cameroun. ndax man xamante ni woon tubaab yi lañ koy jox muy yomb. africain bi laay ñëw defaral ko bagage incha allah suba jël bu leer naññ bu amul werante. maa ngi lay ziar. delloo nga seetaan MMA yow. waa si maa ngi koy seetaan kay. Reug Reug suba am na combat MMA ca Singapour mook ku ñuy wax Alain Ngalani dëkk ca Cameroun. ah Reug Reug de sama boy la presque ñun ñaar ñoo bokk dëkk Caaroy Géej. Euh, mbër gi bu yeboo ma ne daf koo donn sax ndax booy xool jë ci papaam la ko jëlee quoi. jaagaan kan foofu mu dëkk sànce ba fa laa defee sama carrière. ak ay doom baayam ñoom Demba Kan ak Idi Kan ak partout daal maa ngi koy ñaanal ndam daal te foofu mu nekk ci Singapour daal. Mm. caare yi gépp a ngi taxaw mobilisé wu topp ci ginnaawam maa ngi bokk famille Mbéyeen quoi. maa ngi bokk famille Mbéyeen. bu yéen waa suba seen xel dal na ci. waaw sunu xel dal na moom daal ñu koy ñaanal jàmm daal. kilifa gi maa ngi lay bëgg yaa ngi manipuler sa téléphone de. maa ngi lay fay Babacar. ci loo maa ngi sant alhamdulilah. suba na ko fii am nag Singapour lañ ko yóbbu mook doomu Cameroun bu ñëpp ne dañoo tiit ci adversaire bi Reug Reug am. ah waaw yàlla ko yàlla may ndam rek yàlla may ko victoire bu sedd waaw Reug Reug moom ku nekk mun na ko daan ndax liggéey na lu daan ku nekk sport la xëy na waa ji moo ko njëkk ci bi moo ko jëpp expérience mais Reug Reug ñun am nañ confiance ci moom kon ñun dañu bokk ñun sénégalais yëpp kon ñun lay teewal euh, ñu ñaanal ko yàlla may ko ndam bu sedd rek incha allah dëkk maa ngi lay bëgg bu baax waaw Reug Reug suba ca Singapour mook Ngalani ah waaw Reug Reug de champion la moom te MMA bi defoon na ko kon da koy tullanti kon daal ñu ngi koy wax ne ko na gën a góorgóorlu xam ne Sénégal gépp mi ngi ci ginnaawam champion la ndaanaan la na yokk jom bu yokkoo jom rek suñ borom mën na koo may ndam ñu ngi ci ginnaawam daal ñoo ngi koy ñaanal ndam bu baax a baax a baax barki borom naa Babacar naka yitte sant borom nga am tawfeex waaw am naa jàmm naka waar wi Reug suba day jongante de combat bu metti la gars yi wax waaw Reug moom incha allah ndam rek lay am moom Reug dama ko bëgg rek te yàlla tax hmm. mais maa ngi koy ñaanal ci kàttanu yàlla mu daan waa ji daan bu rafet ñibbisi si indi ndam li parce que Sénégal la demal waaw. rek moom bu dul loolu dama koy ñaanal avancement bu jëm ci kanam. am na parce que moom man dama ko bëgg te yàlla tax. loolu leer na sax waaye dama ko bëgg te yàlla tax. dama koy bëggee. billaahi yàlla na bëri jàmm rek. copain maa ngi lay bëggee. maa ngi lay ziar nga afiya. sant bu baax a baax. Reug Reug suba moog Alain Ngoani moog Alain Ngalani ca Singapour. muy combat boo xam ne ñi dañ cee tiit loo ciy wax yow loo ci gis. amul ragal Reug Reug moo xam nga moom moom moom confiance am lay demee rek Reug amul lu muy ragal moom lu muy bëree moom bàyyiwu si dara moom du xoolul kenn xoolul kii kan la xoolul kee kan la moom benn système la yor te da koy bëree te li mu gëm da koy jëli te leer na ma ne da jëli victoire bi da indi loolu wóor na ma rëg-rëg moom xam ngeen ko defe naa. rëg-rëg xam nañ ko bu baax waaw. suba mu nga ba Cam mu nga ba Singapour moog benn doomu Cameroun am na ñoo xam ne dañ ne dañoo tiit parce que waaji adversaire de taille la ñeen ñi ne rëg-rëg faalewul loolu yéen lu ngeen yow loo gis. waaw ñun rëg-rëg daal liñ ci mën a wax mooy koy ñaanal yàlla rek yàlla defal ko ndam waaw waa ji moom lépp lu mën demel yàllaa ko ëpp doole ñu ngi ñaanal suñu doomu dëkk yàlla may ko ndam waaw muy rëg-rëg d'accord jaajëf kilifa gi copain maa ngi lay siyaar waaw la siyaar rëg-rëg loo koy wax suba yàlla may ko ndam waaw ko jàmm ko waaw loolu rek dellu ziar bu baax a yow fii nga ne ci marché bi. waaw fii laa si marché bi. rëg-rëg gis nga suba li mu jëm loo ci loo ciy wax. waaw et tudd yow. waaw man la Thial gi waay ñëpp xam ma di président fan si club guy gi foofu waaw Reug Reug nag suba dañ koy ñaanal ndam parce que mun naa représenté Sénégal la représenté quoi di ko ñaanal ndam ci làmb ji mu daan ko incha allah mu paree nag bu ñëwee nag après ñu defal ko bagage waaw. loolu de yéen ñaar loolu fii lay amee waaye la ne fee moom waa géej waaye ñëpp ba da ndam foofu waaw ñu ngi koy ñaanal ndam ñun ñëpp waa géej waaye wax dëgg yàlla parce que Guédiawaye la représenté quoi foofu noonu waaw ñëpp la représenté mais bu ñëwee rek après ñu am lu ñu ko defal nag. waaw loolu ci kanam <laughs> incha allah maa ngi lay bëggee mbokk. waaw mais ziar nañ leen naka war. fii la ëppee sant ak mu ñu nga jàmm. sant yàlla alhamdulilah suba rek nañ li mu dugg daa metti. waaw rek laay ñaan muy ci wàllu corona bi yàlla nañ ci yàlla génnee ci barki yonent yàlla Muhammad ndax sonn nañ loolu la am ndax démb rek maa ngi maa ngi xool waaj ci net bi di ko suivre Capo lay lay lay lay defanteel ku am entraînement lay defanteel di ko nag ñaanal ndam yàlla na ko yàlla may ndam ndax dafa bokkut ak suñu bëri foofu ca xabal amu fa léppay xeex kuntaaba mbëkk li conc léppay dem bokkut ak suñu xeex est di ko di ko ñaanal nag bu fekkee ne lamu lamu déppal yàlla na ko ci yàlla may ndam moom daal rëg-rëg naa ci moom yaakaar am naa ci moom yaakaar de rëg-rëg te incha allah yaakaar boobu yàlla bu mu tas waxewu ma nag ngir dara waay laa dëkk ci xeexi américain yi laay wax lu leer laa bëgg waaw yaa jëf maa ngi lay bëggee mbokk. mbokk maa ngi lay delloo bëggee baaga tur bi Cheikh Lambaye. Cheikh Lambaye Reug Reug xam nga ko. Reug xam naa ko bu baax. suba mu nga war a dem ca Cameroun jongante ji ak Alain Ngalani wala bokk ca Singapour ki muy jonganteel di doomu Cameroun looy wax Reug Reug. noo Reug Reug dama ko naan mu tey def ndànk rek ndax Reug Reug mbër mu garaw la def na lu ne ci lam te man gëm naa ne Cameroun rek da koy daan. day daan kuy daan. rek rek da koy daan. day daan daan de. ci torop ndax man doomu Sénégal laa rek rek laa gëm. Mhm. def na fi lu ne. ku xuus Sénégal kon xam nga ne bàyyiwul foofu. waaw yaa na yaa na ko yàlla may nam rek loolu lañ waaw. waaw. fii la ëppee. am nga jàmm. am naa a baax. xam maa ngi koy dégg mhm. waaw. suba de day jongante combat bi ñu wax MMA ca réew mu ñuy wax Singapour loo koy ñaanal en tant que yaay booy. xanaa ñaanal ko ndam rek ndam rek ndam rek ca kaw ca kanam waaw maam ndam rek. kon nag mbokk yi gis ngeen lool ñu leen jëlal si woon tey ci biir dëkk bi rawatina Petersen rëg-rëg kon daal defe naa sénégalais yi nga li ñu wax ñoom ñëpp ñu ngi si sa ginnaaw di la ñaanal kon yàlla na la yàlla may ndam parce que drapeau réew mi ngay représenté wala moom ngay défendre suba nga xam ne mooy ca Singapour yow ak Alain olof nag nee na dompat sax ci sot la bokk dégg nga ñëpp li ñu wax kon daal xule loolu la gars yi wax kon nag suba combat ba Singapour lay amee nee nañ 14h lay am maanaam GMT kon na ko ñëpp xaar ñaanal yàlla rëg-rëg mu am ndam ba mën a ñëwaat fii Sénégal jàmmaarloo ak guy gi loolu waa GFM ñoo ko tëgg seen combat boobu nag ñun ñu ngi ñaan yàlla que le meilleur ci yow sa digganteeg guy gi ndax loolu fii ci réew mi la waaye la fële moom jàppal na askan wi yëpp ñu ngi ci sa ginnaaw jaajëf